partout ñu ngi leen di nuyuwaat encore une fois di wax ne ñi ngi fi nga xamante moo di ci salon bi euh, di euh, lii di salon maison déco jëm ci organisation bi nga xamante waa APDA euh, amal nañ ko bànqaasoo ci ministère bi ñu dénk wàllum artisanat waaye acteur transformation bu secteur informel tey juróom-ñaari fan ayu bés ngi nii bu jeex tàkk ci xew-xew koom-koom une semaine d' activité économique ici à la foire internationale de Dakar ñu jeexal ko ñu ngi fii tey ji ak beneen këru liggéeykaay seen entreprise sax sëñ bi ginnaaw ma la nuyoo dama bëggoon waaw ñun suñu entreprise mi ngi tudd Siga Design di yëngu ci lépp li nga xam ne ci ameublement la ak décoration intérieur tout est fait voilà. waaw tey semaine bi ngeen ñëw participer ci salon bi euh, d'abord lan la leen def bu ngeen ñëwee participer ak lan ngeen jàpp ne tey jii vraiment euh, semaine bi ngeen fi def nii gis ngeen ci njariñ wala loo xam ne gis ngeen ne war nañ ko ci gën a yokk. waaw avant tout di di rafetlu initiative bi waa PDA am. waaw def nañ fi sept jours ñëw exposé suñuy produits bon di di ko di ko di ko di ko rafetlu te di xam le ni am na gis jàngat ma ci am mooy am na réussite am na ay bon ñëpp objectif bi ñëw pour euh, pour exposer la nekkul principalement pour jaay ñëw wane sunu mën-mën sunu xam-xam xam nga. bañ won sénégalais yëpp ne lépp lu ñuy wër ci biti mun nañ ko am fii nii ci biir réew mi voilà non seulement dinañ defal yoo nga xam ne ne rafet na waaye mucc na ayib tamit ci dëgëraay waaw lu ay produits yu baax yu garanti ay at yu gën a garanti que yu ñuy jëlee extérieur moo fi nekk te fii lañ koy defaree macha allah. solo kon uh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax uh, di gis ngeen ko dañuy wéyal ba tey ak suñu yenn intervenant te jii mooy mm, cette dernière uh, journée de cette activité économique bi nga xam ne ñu koy amal jëm ci salon bi wane li Sénégal di liggéey ne mën nañoo tabaxal suñu bopp mën nañoo def la ca biir suñu bopp lépp jugee ci ñun ñu wax made in Sénégal kon ñu wéy ak waa Xelcom immeuble waa Xelcom meuble Dakar ñoom it ci liggéey bi la bokk ñu dem fa wan leen tamit wax ak ñoom seq ñoom laaj ak tontu rapport ak cette. Euh, journée euh, de clôture concernant également l'activité économique euh, jëm ci wàllum artisanat bi bu fekkee sama cameraman noppi na rek ñu wéyal waxtaan bi maa ngi ci Khelcom meuble gis ngeen ko fii nii tamit ci foire bi ci salon maison déco bi pour cette dernière journée d'activité économique dans le cadre du secteur de l'artisanat sëñ Abdou Samb ginnaaw boobu la nuyoo tey juróom-ñaari fan ngeen def ko fii ci foire bi wane li ngeen liggéey wane ne li nga xam te Sénégal lañ ko liggéey lan nga mën a tënk ci salon bi lan nga jàpp ne fi nekk nii euh, jot ngeen ko fay def. Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi nuyu suñu mbokk artisan yëpp di jaajëfal euh, ki nga xam ne moo organisé foire bi. di ko jaajëfal di ko wax ne vraiment lii lu ñu nam lu ñu bëggoon la mu nekkoon suñu xel bu bëggoon ko réaliser far far tombé le ministre président la république am xel bi Euh, moo tax ñu kontaan si ñëw bi ñu wooyee ñu participer ñëw indi suñu produit euh, ñëw tey euh, indi suñu produit pour sénégalais yëpp xam lan la Sénégal lambda bi gën a mëne si côté liggéeyam waaw loolu tey moo ñu moo ñu fi indi. mais mais tey activité bi lan ngeen ci tënk lan ngeen jàpp ne buñ seen yokk ci xëy na am na lu baax mais am na loo xam ne aussi waroon nañ ko gën a améliorer ci en terme d'organisation wala yeneen yu ni mel. waaw tey liñ fi liñ fi gën a seetlu daal li nga xam ne euh, gën euh, seetlu nañ ko fi mooy que ni euh, dañ ko waroon a gën a médiatiser mhm. waaw télévision yi rajo yi ñëpp yëg ko. Euh, bu ko defee euh, sénégalais yi euh, mën a mën a mën a préparer wu bu baax a baax ak visiteurs yi bu ñëwee fekk fi ay produits yoo xam ne nii dañ koy préparer indi ko pour sénégalais yëpp mën a gis ne vraiment sénégal yi ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax ñu bañ a jigaane benn benn benn importation pour indi Sénégal fii.

international bu Ndakaaru ngir bi nga xamante ni ñu ngi ko fësal sunu yi te jëm ci liggéey bu loxo loolu nag am ak pàcc xamante ni moo ko jël jagleel ko ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci wàllum tabax ak jumtuwaay yi muy àndal moo xam décoration ak lépp loo xam nag moom lay demal loolu nag bii mooy juróom-ñaareelu fan bi ñu koy jeexal tey jile euh, gis nañ bu baax a baax euh, nit ñi ñëwoon di visiter également wane nañ seen mbégte ne liñ fi gis dal na seen xel waaye ñu fi liggéey tamit wax nañ ne liñ fi euh, gis dal na seen xel rafetlu nañ APDA liggéey bi nga xam ne def na ko ci wàllum artisanat mu nekk euh, liggéey boo xam ne jàpp nañu dina tax Sénégal am xamemteef ci li nga xamante ni mooy meññe ci biir réewam mooy fi euh, génne moom lañ fi liggéeyee euh, jàpp ne tey jii nous devons produire ce que nous devons consommer consommer autant pour moi mu nekk li nga xamante ni moom moo soxor wàllum lii di secteur artisanat bi ñu war leen a gën a tamit dooleel de la part de l'État du Sénégal gën leen a jàppale xam ne fii ci réew bu Sénégal xarañteef gaa ngi fi lépp a fi